jëf suñu mbokk internet yi nii àndal ci seen rubrique fait divers yi ñu ngi leen ni nuyu jaajëfal leen foo leen mën a ne ci àdduna bi jox leen seen i clé ngeen ubbi seen rubrique mooy lan da ngeen di def abonné ci suñu seen YouTube bi di Thiès Info TV boo leen bësee abonné ngeen bës euh, li nga xam ne moo di s'abonné maanaam cloche de notification bi bu ko defee vidéo bi foo leen mën a ne ci dunia muy man di apparaître seen téléphone ngeen mën a xam li xew ci fait divers yi ak ni réew mi di doxee man di moytu waaye man di jël ay devant euh, bu loolu weesoo itam sàkku nañ ci yéen ngeen commenté vidéo bi ndax lu am solo la soo leen ko commenté ngeen partagé ko ku ci jotu doon man caa jot waaye itam ñi ngi leen di ñaan ngeen déglu ñu ni ñuy commencé ba nañuy jeexale tey nag dañuy daw ci diwaanu Saloum foofa day xeex bu méttee méttee métti moo fa amoon ci benn dëkk kaw bu ñuy wax ndimb korki ndimb korki nag mi ngi bokk ci département Birkilane foofa day mbokki internet yi de village ba ak imam ba ñoo fa amal jàppante yu métti la indi jàppante ba nag dagg mbuy la maanaam dem ci garab yi buy di dagg doom ya loolu moo indi la nga xam ni moo di jàppante yi mu mel ni village ndimbu Korki ca région bu Kaffrine foofa day ginnaaw àllarba ji ñu génn ba suñu jamonoy tey jilee coow yu méttee méttee méttee moo amee ca askan wa lay waral nag coow la bokk na ci diggante imam ba ak chef de village ba ginnaaw nag ba imam ba tekkee ndombal tànkam ca jumaa ja daal def démission ngir nag coow li fi mu toll ak ampleur bi mu mel ni ay xeex yu méttee méttee métti moo fa am la ko indi mooy buy buy nag moo ko indi te buy bokk na ci li dem ci laax buy bokk na ci li ñuy defaree am njar mbokk yi loolu mooy sujet bi soo leen teewloo ñu ñëw ci feeyee ay cee ñu dem mbir yi nii la demee déglu leen ñu mu mel ni daanaka euh, waa ji di wuyoo ci turu SCC di chef de village ndimb Korki bokk ci région de Kaffrine ak imam bi di wuyoo ci turu Dee Saw nekk imaamu bu dox gox booba di jiite euh, it di jiite waxtu julli juróom yi ci diine lislaam ñoom day seenu histoire yàgg na loolu bu ñu sukkandikoo ci suuf si ñu am ndax nag histoire la boo xam ni amaana ay ati at la li ko waral nag lenn la keroog bi nga xamee ni dëkk ba bëgg na noo teg chef willage village chef bi nga xam ni moom moo amee coow li di SCC moom day bàyyi lut woon dara rakk imaam ji doon xëccoog moom ca diwaan ba ba tax na SCC gagné na la nga xam ne moo di village ba waaye ba mu nekkee chef de village nag jamono booba ba suñu jamonoy tey jii coow yi sew moo am ci digganteem ak imaam ba ndax imaam dafa bëggoon wala ay mbokkam dañoo bëggoon seen rakk nekk chef de village ba loola sottiwut SCC daal di leen di gañ coow la fa la tàmbalee coow la di wéy ñu koy nës-nësal di ko denc di ko raay di ko bàyyi ak bàyyi xel di dem di dem di dem ba jamonoy dox nit ñi jàppoon ni sax coow lu yàgg loolu fàtte woon lañ ko ci ñaari notable yi nga xam ni tey jii dëkk bi kuy wax ñoom lay waxal waaye nag al talaata jii ñu génn maanaam mardi 27 décembre ab incident bu méttee métti moo amoon ca diwaan ba buy fukki waxtu jotee ci suba maanaam 10 heures ci suba ay ndaw yu dëkk ci dëkk booba di ndimb korki di yëngu nag ci wàllum njaayum buy maanaam dem di fàq ay buy dem ci marché yi di ko jaay ñu seetlu ni jamono bile euh, buy dafa nekk lu dox ci marché ba ci jamono bii ndax ay koppar la lay indil ba tax na nag gune yi daal di dem ci benn tool di fa fàqi buy cële leen nag imaam ba gis di dee saw ba mu leen gisee mu daal di ñëw ni leen bàyyi leen li ngeen di def arrêté leen dagg buy gi ndax fii ngeen di dagg ci buy gi kat du seen moomeel sama tooli maam la fi buy yi nekk sama suufi maam la kon amu leen droit di fi dagg wàcc leen ngeen bàyyi li ngeen di def ba mu yëkkatee kàddu ga nag cala caw la wullee ñaay ba mu yëkkatee kàddu ga moom imaam wax loola avertir ña nga xam ne ñooy jeunes ya dem di daggi guy eh, cala nu jekki-jekki rek ab mbooloo fàqiku ànd ak ay soxna ñu daal di wutali nag ca kër chef de ba maanaam dem di ko attaqué ndax xëy na danoo njottoon ni chef de village bi moo yebal gune yooyu ñooñe itam ban mu demee di attaqué chef de village ba itam maanaam euh, profitoo ca mbir ma solde ay kontam ci imam bi maanaam moom itam daal di jël xeex ba yenu ko maanaam def ko xeex boo xam ne xeex bu saf-sàpp la waaw jël xeex ba yenu ko mobiliser moom it ay ndawam ay dëkkandoom ñu wuti ca buy ga mu jox leen ordre ni leen boo leen demee na ngeen ko dagg waaw coow laa ngi noonu euh, loolu itam nekk loo xam ne dérangé wul imaam ndax dee saw moom di imaamu dëkk ba moom pare na ci lépp ndax comme que coow la yàgg na te tey am nañ occasion jaarale ko ci ay buy na metti na tar na dëgër ñenn ña yore yi jaasi ñëpp mobilisé wu daal di wuti ca fa nga xam ne moo di buy yee mu nuy fàttaliku nag xeex yee mag ñi njëkk ñi daan xeex ci histoire nga xam ne buñ masaana jàkkaarloo ndeysaan kenn du ci am recul ndeysaan jiital fit ndeysaan bañ nag li nga xam ni moo di déshonorer sa bopp respecter sa kàddu ndeysaan taxaw ni sëcc boole fitiwu gaynde lu ni mel nag moom la ñaari camp yi taxawe woon mu nekk jàkkaarloo boo xam ne ndeysaan daf nuy fàttali histoire boo ci yemoon rek keroog ci dëkk booba di ndimb kor ki mën nga koo bind ci histoire Sénégal ndax jàkkaarloo niti imaam yi ak jàkkaarloo niti chef de village bi daf nuy fàttaliku guerre ndeysaan tey Sénégal ñuy dem ñoom ñaar ñu jàkkaarloo ca la nag imaam yëkkati kaddu yu ñagas yu diis jëmale ko ñi féete ci euh, moomeelu chef village maanaam ñi féete ci camp chef de village bi imaam yëkkati kàddu yu diis bi ñu jàkkaarloo sànni leen ko kàddu ya nag xam naa dugg ci seen yaram di xasan loolu di fet-feti xeex ba tàmbali wéerantey kurfeñ ya ku ne loo yor wéerante ba telli telli ja ràjj ràjj ja telli telli ja ràjj ràjj ja bu dëkk ba yéemu nes nag gendarmerie bu mbir ki jot ci xibaar bi yebal fa élément yu takku ngir nag ñu dem daal di sauver askan wa ndax kenn ku ci nekk sa dret tàng na kenn ku ci nekk loo dencoon ci histoire boo xam ne yàgg na yaa ngi koy bëgg a génne ca la nag sous préfet arrondissement Mabo moom itam daa di woo service départemental eaux et ba nekk ca mbir ki ngir nag ñu gën a bàyyi xel xeex bi dem te xam lay xew lan la ba ñooña demee ca la convoqué nag benn réunion de crise woo acteur yi ci dëkk ba yëpp woo kilifa yi nekk ca département ba yëpp walla wala wala nekk ca arrondissement Maabo ñu toog amal ëpp lël moom sous préfet waxtaan ak ñoom waxtaanoon nag yàgg lool waaye amul solution ndax kenn ku nekk bu nu sukkandikoo ci source bi fa nga jàpp bàyyi woo ko mu nekk waxtaan wu yàgg waxtaan woo xam ni xóotoon na loolu mu nekk nit waxtaan woo xam ni. daanaka ñi féete ci camp imam nit ci lañ def ñi féete ci camp chef de village ci lañ def mu nekk waxtaan wu doy mbokk internet yi loole noonu nag ca talaata ja àllarba ja ca suba ga lañ lañ convoqué réunion ba ndax mbir yi talaata la am ba sëdd àllarba ba nu yebalee gendarmerie yebal eaux yebal ña nga xam ni ñooy kilifa ya ca la ñu nag réunion bi imam nag daal di démissionné. ba nga xamee ni nag jóge nañ ca réunion ba te saafara amul te kenn ku ne yaa ngi téye ba nu delloo ci dëkk ba ña féete ci sedd village continuer di sànni xeer imaam di ko yëkkati ay kàddu yu ñagas di ko ko jëmale ba ci barabu jullikaay bi ca imaam nag daal di démissionné yëkkati caabi ji teg ko ci seeni loxo ni leen bis ni tey jiiteetuma leen nekkatuma koo xam ne daf leen di xamal seen diine wala itam di di leen bàyyiloo xel loolu ci li ñu bokk waaye bis tey remettre naa leen seeni clé xool leen ku leen doy ngeen def ko imaam ndax booba nag pression ya ak coow la ak menace ya dafa bari loolu ci noppi imaam takkarnaase waaye mu takkarnaase loolu ci askan wa fa ne ndax nag ñi féete ca chef de village ba dañoo ngëlbatiku di sànni ay pikk imaam wax ju diis wax ju diis ba ci waxtu yi nga xam ne imaam da koy julli ci jàkk ji muy lu yéeme lu doy waar imaam ba mu demisione nag xëy na dinañu am solution yi ak suñu yeneen rubrique fait divers ndax problème la boo xam ne problème interne la yàgg na muy lu doy mbokk internet yi ñu leen ko doon faram-fàcceel waaye bala ñuy ñëw ci laaj bi rek ñu jàngat ci ay ponk fait bii ñu am tey jii ci dëkk kaw bi di ndimb Korki bokk ci département Mbirkilaan moom day dañuy fàttaliku fait bi amoon ci dëkk bu ñuy wax Njéey bokk ci commune Pire ci département Tivaouane ndax foofu day mbokk internet yi boo leen fàttalikoo ci suñuy reportage fàttaliku ci suñuy fait divers dafa amoon coow lu amoon ci diggante imam ba ak noddukat ba ñoom ci li ñu wax ñu ni dañoo comploter noddukat ba tere ko jàkk ja buy nodd ñuy fay rajo ya mu dem ci wetu këram ñaan génn góor goo xam ni yàlla dogal na foofa amoon na fa suuf ci ñoom xibaar yi ñu indi góor ga may ko suuf soo soosa mu tabax fa jàkk moom noddukat bi bëgg yem këram di fa jullee ngir daw coow gars yi mobilisé fekk ko fa muy tabax jàkk ja ñu wéer ko ay yat ba mu sedd guy yi loola gis ngeen ko fii kon mu mel ni problème yi mel nii bu nu ko jàngatee rek dafay yàgg ci Sénégal waaye xëy na bu beesee dina jaaxal nit ñi mais ay problème yi ndaw moom moo koy déclenché au lieu ñu régler ko une bonne fois pour toutes mais dañ koy bay bayal di ko bay bayal ba mu jur musiba fee bu nu gisoon ci njëy nag daf koy méngale ak fii donte nag fii source bi nu am bakkan rotu ci waaye fële ca njéy day ab bakkan rot na ci mu nekkoon loo xam ni àdduna bépp ko naqarlu woon rawatina nag région de Thiès ak département Tivaouane ba mu amee kon mbokk yi bu ñu tollootoo ci lii ndéem chef de kay bu fekkee am na ndax coowul njéy li boo xoolee itam chef de village impliqué nañ ko ca imam te ba léegi ñu ngi ci loxo yoon ak ñeneen ak ñeneen tey jii ñii coowoo nañu wéerante nañu yat kilifa yi dem nañ fa solution amut imam démissionné na waaye bu coow li buñ ko réglé boo moytuwul ay arrestation na ci am wala ay ngaañ yu metti kon mu doy waar kon mbokk yi autorité yi nga xam ni itam ñoom dañ leen a fal te nekkal fi nguur gi nañuy saytu dëkk kaw yi di leen bàyyi xel bu ko defee coow yi mel ni bu amee ñu man di ko euh, indi saafara ba du law bay indi musiba ndax xam nga ni coow lu amoon ca ba nuy fal chef de village mu yàgg loolu imaam am bëggoon waa ji ne chef de village tey di SCC gañ rakki imaam ja loola mitti leen mu nekk góomu xol boo xam ne ñu ngi koy wéyale ba ay gune wëlbatiku dem ci ay guy yoo xam ne imaam dafa jàpp ni suuf si suufi ay maamam la guy yooya mu tere leen ni doo leen fa dagg xale yi ñoom itam ne ay yeneen délégation mobilisée dem attaqué ji chef de village bi chef de village bi joxe consigne attaqué imaam wëlbatiku moom itam ñu jàkkaarloo ca fa nga xam ne mooy buy ya coow am fa ba lii am kon mu nekk lu doy waar kon baax na itam autorité yi ni déconcentré ci biir réew mi ñuy bàyyi xel village yi di leen gëstu ndax bu njëkk kat village da nga daan am sax problème am kers loolu mu génn ndax bu chef de village waxtaanee askan wi ñëpp bàyyi mu sedd bu njëkk village xamul woon gendarmerie village xamul woon euh, préfecture village xamul woon gouvernance lu dul soxla bu am solo mais du coow tey bu ñu demee ba ay sous préfet di intervenir dans les villages ay gendarmerie di fa wàcc kon c'est parce que culture ba village amoon jàmm ja village amoon cohésion sociale ba village doon doxee dañu ko bëgg a naax saayal te pourtant culture fa mu gën a riise foofa la ndax kat milieu urbain kenn du tal sa bopp ay dem dikk la te kenn ku ne da ngay wut loo am moo tax jikko bu ne ngay gis comportement bu ne ngay gis loolu nag nañu fexe ba buñ ko dugal ci village foofu la ñuy daanele mbokk yi di leen wax ni leen dinañ toppaat fee bi ba am ci liñ ci gën a mën a yaatal ngeen jot ci laaj bi mooy imam ak chef village ñaari notable yoo xam ni tey booy ñëw ci dëkk ba ñoom ngay jëkk laaj boo fekkee gan nga fa seen coow li nan ngeen ko gisee mbokk internet ndax jaadu na ñaari kilifa yu mel nii yegg fii ba àdduna di ko yëg ñi ngi xaar seen réponse ci suñu partie commentaire di leen ñaañëfal di leen jaajëfal di ko sàkku ci yéen di leen ñaanal kenn dalu jàmm ëllëg ak yeneen sujet fait divers ci Thiès Info TV jërë ngeen jëf